Thank <laughs> you.

parlementaires et ak judiciaires côté groupe parlementaire ligne nga xamante ne liberté démocratique changement ak ñi nga xamante les sept sages du conseil constitutionnel mu daal di décret bi abroger li nga xamante collège électoral bi pour que nous repousser élection et ba mbir yi leer ñu voté ko ci assemblée nationale ñenn ñi dañ ko jàppee coup d'état institutionnel moo ben coalition dans di bees daal di juddu ñu tuddee ko aar suñu élection aar suñu élection n'a ni ñi ngi woote bépp couche bo, xamante ni da nga bokk ci société bi nga pour manifester lan à son suñu élection manam ay nit la yo xamanteni ñi nenañu société civile lañu bok ñi nenañu nee nañu syndicaliste la ñu bokk ñii ay religieux lañu ñom ñoom ñoo boole seen doole pour créer ben mouvement bu bees ñu tuddé ko aar suñu élection bu len faté ni ko momu len élection yi élection yi 18 millions de sénégalais ñoo mom ben fofu rek la len faté élection yi ça ça appartient aux 18 millions de Sénégalais. Ça n'appartient pas à cette société civile ba nga xamante ne soo leen xayma ci Sénégal ñoom société civile et ak ñi leen fal ak seen bureau matuñu 300000 tey ñii nga xamante ne les syndicats yi soo leen 1 million. ñii tous des religieux ils ne représentent pas la religion au Sénégal ndaxte que ci sëñ Mountakha Bassirou Mbacké bokk ci. mom mo fi togal képp kuy murit ci souf gisuma sëñ Bay Si Mansour bokk ci mo fi togal képp kuy tidiane ci souf gisuma Cheikh Mahi bokk ci moo fi toogal képp kuy ñaseen ci Sénégal gisuma xalif général des Layènes bokk ci moo fi toogal képp kuy Layène ci Sénégal gisuma xalif général des xaadar bokk ci moo fi toogal képp kuy xaadar ci Sénégal gisuma kenn ku bokk ci église bi muy abbé Jacques Seck bu ci bokk ñoo fi toogal képp kuy chrétien fii ci Sénégal kon yaakaar naan su ñu naan leen religieux ñooñu rek ñooy Sénégal ndax Sénégal tarixa yooyu ñoo fi nekk murit tijaan laayeen a ñeseen catholique kon ñooñu eu nañu dix millions du Sénégal donc ku ci que su ci est ma xam ma femme jël ngeen ay religieux mais jël ay soi-disant religieux yoo xamante ni ils sont là uniquement que pour des intérêts politiques et crypto personnels ngeen boole ay convictions yoo xamante ni bokkul syndicat beaucoup ci gis ci enseignants yi ñoom it seen pàcc la ñu représenter muy quelque intérêt yu ñuy défendre donc défendre ñu intérêt peuple bi kon su ngeen taxawee tay di naan aar suñu élection bu len nan ar suñu élection da ngeen di xaar ba l'unanimité des sénégalais wala référendum voté ko la majeure partie des sénégalais viennent leen ko ngeen soog ñu wax donc je crois que la première des choses que j'ai décrit ar suñu Sénégal ben affaire la bo xamanteni ni ben association d'arnaque bu bout bu loup bëgg a prox ndollu ci li nga xamanteni moy report élection yi pour faire sen poche à rouler suñu élection seeni poche ngeen di ar naa expliquer naka la ñuy aaree seen i poche naka la ñuy aaree seen i intérêt ndax suñu jëlee loolu teg ko ñu tudd wàllu élection bi nga xamante ni ñun ñëpp ko bokk dañuy dem ay Union européenne dem ci lu melni ay yenn ONG yi ay Enda Tiers Monde ay ambassade des États-Unis ay lu melni Oxfam

ban sénégalais mo len ko votel ban crédibilité la am à part xëy bind say papier def sa ben affaire wo sa quelque nit nga ne organisation no profit gouvernemental la dem ay Nations Unies ay ONU ay CEDEAO ñu len di jappalé sur consort te xamuñu fal ngeen ko jëmale xeexalu len Sénégal société civile 2021. ba 2022 gis nañu société civile bo xamanteni neutrul parti politique lañ doon défendre parti boobu dissoudre nañ ko muy ex

waxtaan wax dëgg moo ci neex lu ñu xam le tey yaakaar naa ni dama bëgg ñu dem déglu ji li nga xamante ni mooy xamante xal bi ñu joxee ñu dippee ko plateforme bi nga xamante ni mooy aar suñu élection ñi ngi woo képp kuy mouvement citoyen religieux ak ñi nga xamante ni mooy ay organisation socio professionnelle ak ñi nga xamante ni mooy ay personnalité de la société civile ñu exiger li nga xamante ni mooy rétablissement jëmale ko ci calendrier bi nga xamante ni mooy électoral ci benn communiqué bi nga xamante ni génnee nañ ko maanaam démbul le 8 février 2024 muy plateforme boo xamante ni dafa war a xeex jëm ci aar li nga xamante ni mooy suñu élection ginnaaw bi nga xamante ni waroon nañu amal ci euh, tenir li nga xamante ni chef de l' état Macky Sall annulé lii di élection présidentielle yu 25 février 2024 ba tey ci ñoom la ñuy sukkandiku bu ñu bëggee coûte que coûte que lii nga xamante ni élection yi daal am à la date issue muy le 25 février 2024 nous ñu ngi woo képp kuy mouvement citoyen religieux organisation socio professionnelle ni di personnalité société civile ñu daal réunir ci benn plateforme pour xamante ni aar suñu élection la exiger lii di rétablissement jëmale ko calendrier électoral nous indi une constance pour xamanteni indignation indignation moy la signature bi président de la république Macky Sall décret dal di violer li nga xamanteni constitution abroger li nga xamanteni décret 2023 28 83 jaarle ko ci li nga 29 11 2023 bi porter convocation du corps électoral bi jëmele ko ci mise en œuvre autorité li di démarrage campagne électorale le dimanche 4 février 2024 muy tenu li nga xamanteni moy présidentiel du 25 février 2024 ci constance boobu le Sénégal dal di dund li nga xamanteni moy mooy benn crise politique bo xamanteni bo boo ak dara li di institutionnel lu koy justifier muy arrêté li nga xamanteni moy processus électoral ci constance boobu la ay députés daal di voté li nga xamanteni sans débat li di proposition de loi bi nga xamanteni ni dafa reporter datu bi nga xamanteni moy élection présidentielle ba le 15 décembre 2024 lan lay risqué prolonger li nga xamanteni moy ben second mandat jëmele ko ci président de la république ginnaw bi nga xamanteni lepp luy terme fixé nañ ko le 2 avril 2024 ñu daal di exiger li nga xamanteni moy rétablissement calendrier républicain bi ki ko xamle mooy seen communiqué bobu li wa ar suñu élection ba tey ñoom ci seen bop ñoy poursuivre muy membre société civile di invité jurom ñaari sage ak ñi nga xamanteni moy cour suprême ñu dal di jël li nga xamanteni moy moment yi nga xamanteni dafa lëndëm jëm ci responsabilité jakarlok histoire dal di rétablir lepp lo xamanteni immédiatement la muy ordre légal bo xamanteni dañuy sukkuliko ci constitution ba nopi arrêté wu ñu daal di dem jël li di plateforme bi décidé war découdre ak li nga xamanteni moy régime actuel bi dal di woote ben mobilisation populaire jaarle ko ci li nga xamanteni moy étendue du territoire national képp kuy citoyen boo xamante ne da nga am souci jaarale ko pour devenir li nga xamante ne mooy démocratique mais encore ñu indi benn mbooloo boo xamante ne dañuy julli jaarale ko ci musulman yi ak ñi nga xamante ne mooy chrétiens yi lepp loo xamante ne tey boole nañ ko muy képp kuy jullit ñu ngi lay invité nga dem tey massivement foofu ca grande prière bi ñu jagleel lii nga xamante ni mooy ajjuma ji di julli juma bi 9 février 2024 nga sol yére bu weex ba noppi daal di arboré lii nga xamante ni mooy couleuru drapeau national pour manifester li nga xamante ni mooy sa mer ak sa indignation jaarale ko ci benn affront boo xamante ni tey peuple sénégalais ñi ngi koy dund képp kuy chrétien aussi ñu ngi lay invité dimanche 11 février ci ce bir mes nga def la même chose sol yére bu yor drapeau bi ba nopi dal di formuler ay prières Batay tey ñi ngi xamal képp kuy imam wala évêque nga jël li nga xamante ne mooy say prêcheur manam say xutba nga dal di koy jagle ci ajjuma ji ak dimanche nga dal di dénoncer li di violation de la constitution par ki nga xamante ne le président de la république Macky Sall loolu la ñu xamle ñu ngi woote tey benn rassemblement boo xamante ne tey bëgg képp kuy société civile képp kuy mouvement citoyen képp kuy religieux nga ñëw ngeen dajaloo suñ fa nga religieux yi daal sol ils bu weex yor drapeau ci ji ak église bi la même chose dimanche dama leen di laaj lu ci yoonu religion ak politique ñi religieux ñu ci organisation boobu kan moo leen fal kan moo leen def religieux kan est-ce qu'il représente le peuple il faut qu'on soit sérieux yàlla bi muy du julleem bobu politique xewul Sénégal xewul élection xewul aljuma bu jot ñu dem julli ji suñu démé ba jël politique bëkk ko dugal ci biir jumaa ji ne sol leen yére bu wéx yor drapeau yóbbu ci biir jumaa ji defal suñu yàlla soyons sérieux c'est quoi ces foutaises kuy julli ji demal nga julli ji ku bu dul julli bul julli ji kon yaakaar naa ni tey su ngeen jàppee Macky Sall dafa violer loi bi ngeen sukkandiku ci religieux yi et pourtant yéen société civile yéen syndicalistes yi yéen mouvement citoyen fii ngeen tok jakarlok ay sénégalais yu bok ci ay partis politiques ma meuna a citer Ousseynou Seck Akhenaton ma meuna a citer Kay Fof ma meuna a citer ki nga xamanteni moy nit ku alku ki nek fofu États-Unis sante Tunkara lu ma tudd. toog di saga suñu ay kilifa diine muy Cheikh Mahi Niass représenté fi faydu bi kep kuy taalibe Baye Niass Cheikh Mahi Niass la fi togal saga ki di seigne Mbaye si Mansour représenté fi kep kuy tidiane te Alaaji Malick Sy tracé voie boobu saaga fi képp kuy murit jaarle ko ci kii nga xamante ni mooy sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké yéen société civile boobu fan ngeen nekkoon yéen religieux yooyu fan ngeen nekkoon ba jël leen seen xutba daal di xeexal ñii nga xamante ne tey ñoo fi toogal diine fan ngeen nekkoon lu leen tere woon ne ajjuma tey nañu sol yére bu weex jëm ci ji ma jël bi jaglal ko fii ñu xeex ñii li saga di ñàkk ormal suñu kilifa c'est aujourd'hui que vous nous sortez les religieux ils sont sortis d'où fu ñu génnee ku leen def religieux ban intérêt moo amal nañu jël yàlla teg ko fële jël politique bi teg ko fële politique yëfi caaxaan la yàlla yëfi dëgg la nañu topp suñu dëgg bàyyi yëfi caaxaan yëfi yëfi malonet yëfi fen yëfi muy benn cas deuxième cas ngeen ne syndicalistes yi ñu ci ëpp mooy enseignants yi ñooñu est-ce que dañuy représenter l'unanimité des sénégalais ku ci nekk sa intérêt ngay défendre par rapport ak sa corps man défendre ñu sama intérêt défendre ñu intérêt ma Samba ni intérêt ma Demba kon bu leen ñu fonto bu leen ñu yàpp su ngeen jàppee violation la man jàpp naa ni du violation parce que président Macky Sall reporté wul dafa jaar ci luko constitution may constitution lu ko may yéen sénégalais yéen a ko voté jël article 42 def ko ci constitution bi ñun defuñu ko ci yéen société civile bi yéen il ko féké yéen politiciens yi a ko féké mu sukkuliko ci article 42 bobu yobbu ko assemblée nationale ñu voté ko yéen a assemblée nationale pencum ndaw réew mi la askan bi ñoo leen fa toogal askan bi mo len fal kon donc su amé majorité ci député yi fo wax kon nañ japp majorité askan bi dañu and ci report élection bi kon minorité bi ñoo ci àndul donc vous représentez la minorité su vous êtes démocratique nak xex bo gis majorité moo koy minorité mosu ko emporté vote bo gis dañuy xol lu ëppalé say majorité moko ko su ngeen taxawé ci seen biir communiqué nga ne dañu violer parce que dañu def ben vote loi bo xamante amul débat c'est faux et c'est archi faux qui le dit je te dis que c'est faux et je te défie c'est archi faux le débat a commencé de 12 heures. Le vote s'est fait après 22 h De 12 h à 21 h il y a eu 40 députés de l'opposition qui ont pris la parole qui pipi bi nañu du débat 40 députés de l'opposition ont dit que loi bi d'accord nous. d'accorduñu ci Nous ko wax nañ ko avec ko joxe nañu nous ay argument du débat kon sommes silence là. Arrêtez cette hypocrisie et cette malhonnêteté que vous faites face au peuple c'est faux c'est archi faux Les am solo c'est wax dëgg li ngeen def un combat, ça se gagne pacifiquement et non pas par des mobilisations. Si la majorité des Sénégalais n'étaient pas d'accord, ils allaient manifester leur colère, ils ne l'ont pas manifesté. Le 23 juin, c'est que nous armés, c'est que police, c'est que les Sénégalais sont d'accord, ils sont d'accord, c'est où nous reculer sur loi. Il y a des Sénégalais qui ont accepté ce report. Il faut qu'on l'accepte. Boulen bafoué li nga xamante ni droit aux sénégalais acceptent le report parce que gis nañu conditions yi mënuñu ci parce que conditions sombres en a ko bind sen bir communiquer. sombre manam moy lu lëndëm amul ben mindeef bu bëgg dem jëli ji dara ci lëndëm nit ku nekk so sañon sooy jël dara dang koy jël ci lumière soyons honnêtes et responsables et respectables arrêtez votre manipulation tay dama xam ni que ay syndicats suñu bëggee jóg né dañuy utiliser moyen bi pour débrayer lo ñi nga xamanteni moy mooy élèves yi perturber sen année scolaire c'est quoi c'est de l'ignorance c'est de l'immaturité ñoom tey enseignants yi suñu perturbé woon seen ay scolarité tey du ñu jàng ba am diplôme doon ay enseignant nos enfants les élèves seen yoon nekkul ci lii nga xamante ni mooy seen combat ne les prenez pas en otage pour leen jàppee leen benn victime arrêtez ce que vous faites société civile amu fi gis neen fi lu fi xew barki démb biñ fiy def benn attentat terroriste ci bis bi nga xamante ni moo nekkoon yaraax ay sambabo yu parti Ibra Déguène ma xaali moo sojange muy ex Pastef bi ñu dissoudre jël ay cocktail molotov sani ko ci bus bi fat ci ñaari xalé kenn ki tollu ci juróom-ñaari at kenn ki tollu ci ñaar fukki at ak ben ban société civile mo bolé dolem ak ñi nga xamante moy syndicat yi ak religieux yi créer ben coalition wala ben mouvement né dañuy aar suñu citoyen aar suñu law wala ñaar ñooñu faatu du ay citoyen duñu ay ndaw bokkuñu ci Sénégal kan moo xam ki am juróom-ñaari at ak ki am ñaar fukki at ak benn lan la ñu waroon doon ëllëg ci senegal lan la ñu waroon jël seen euh, jëriñ seen i waajur ñu rey leen comme ça innocemment te kenn ci yéen yëyu ci du communiquer du dara lu tax wootewu leen xutba yéen ñi ngeen di wax ay religieux ngeen ci jumaa ji ñëpp sol yore yu weex pour que ñu protéger suñu askan xam ne jëf yi kat jëf yu ñaaw la defu leen ko c'est aujourd'hui pour un simple report des élections simple report des élections pour neuf mois yéen ñep ngeen agité wu bakkanu ñaari doomu adama yi dafa gën wala dafa gën a élection présidentielle bakkanu ñaari xalé yu am sept ak ans est-ce que tey reporter élection mo leen sout wala mo leen gën parfois su ngeen di wax damay ne du ngeen xalaat si vous êtes que vous êtes une société civile, vous êtes là pour le peuple, il y a tellement de combats que vous pouviez défendre pour le peuple sénégalais, vous ne l'avez pas défendu. Yéen ngi défendre benn combat boo xamante ni dafa jëm ci ay élection présidentielle élection présidentielle yooyu am lu nëbbu ci biir muy xaalis bu bare boo xamante ñu ngi koy sama mam daan na ma wax naan lu yaq ci aduna jigen moko yaq ak khalis xeyna fi jigen amu fi waye khalis am na fi amna parti bu fi nek ñu jiñ ko lu toll ci 20 millions de dollars le financement de forces occultes par des terroristes muy ben couple qatarien bi ko qui ci parti bi ñu japp fi ki nga xamanteni mo yoron yoroon Express ñu gis ci ay levée de fonds yo xamanteni ay millions millions millions mo doon dem ba leen jappé ba de fonds yoy ñu wara a ubbi enquête saxaw seetlu ci lolu naka la ak naka la qui nañ ko nañ ko dugg ana xaliss bi la tas la na xaalis mën na lu nekk su dee xaalis boobu la ñuy jëfandikoo jamono jii di génnee di tas di financer ñenn ñi di jox ñenn ñi di jox ñenn ñi pour que ñu duusal seen poche porter benn combat pour un peuple alors que c'est pas pour le peuple c'est uniquement pour leurs intérêts personnels boo xamante ni un service la ñuy rendre ki nga xamante ni moo bëgg ay élections am waxtaan nañu wax te wax dëgg nee naa la ku liggéey fukki at ak juróom munoo 20 millions kula jox 20 millions ñi la portel combat bi da à condition nga goré deug am dignité jiital yalla waaye ñi am jamono ji suñu dañ leen di mën lu nekk dofuñu ñi ngi suñuy leen manipuler à travers votre malhonnêteté et votre hypocrisie intellectuelle mën ngeen mais jàpp ni ëllëg ak ci ku ci da ngay ak dañu jiital suñu xel reporter élection musu fi am mi ngi fiy am lan tax mu parce que dañu tuumal ay juge musu fi am mi ngi fiy soog am conditions yi calendrier républicain dañ ko mës a calendrier républicain gënul ay doomu aadama calendrier républicain gënul ay këru nit calendrier républicain juma Sacré-Cœur bi taal est kenn si ci ci defu suñu alal suñu askan mais tey aar suñu élection lan moo lëmb élection bi koppar yi nekk ci biir élection yi léegi nag yéenay benn coalition boo xamante ni yéen a ko war a seetloo ci seen ay mouvement yoo xamante ne amul benn légalité amul benn légitimité parce que man amul benn yoon boo xamante ni man fal naa fi benn société civile d' accord naa mu représenté ma amul benn syndicat bi ngeen di wax d' accord naa mu mën ma jiite amul benn religieux bi ngeen jàpp ni que tey mën na ma ne nii la ma ne ko dëgg la sëñ Mountakha moo mën a wax ma ne ko gaaw

pour nga delu le fi fay parce que Sénégal élection dans trois mois ou quatre mois Attends. ko avec les crises qu'il y a Camara liste définitive vingt candidats yi élection le 25 février mom ci bopam mo yëkëti képp ku taxaw ne mën nañu dem élection jamono ji ñu tollu ak ci lu ñuy dégg mënul nekk c'est faux c'est archi faux te moom ci biir la bokk kon mo leen gëna placer pour mëna dem élection mom mi wuti ay parrainage mom mi déposé caution 30 millions mom mi nga xamante ne investir na xaalisam def le tour du Sénégal di dem di gem di ñëw mo xamné élection mën sa waxuma la nak ma samba de société civile defo ci sa ñaari salam alaykum xana lek ci biir élection yi ma waxuma ay mouvement syndical taxaw nan nangam sangam waxatuma la ñi nan ay soit disant religieux def leen sen ñaar salaka gis nga Sénégal nañuy waxtaan deug mo neex calendrier républicain dañ ko mësa respecter respecté de 1963 ba tey ji mais bobu ba tey musuñu dégg ay juge yo xamanteni dañ leen corrompre musuñu génné ben juge bo xamanteni ni validé na ben candidat bo xamanteni ni dafa am double nationalité ba nopi ñu génné ni ay preuve que ki dafa am double nationalité musu fi am pourquoi ngeen bëgg jéggi yi bëgg ñëw ka lii musu fi am sooy poser benn question da ngay naan li tax ñu reporter élection yi lii ak lii lañ fi gis est-ce que lii mësoon nañ ko fi gis si avant ñuy bañ a reporter élection yi wala musuñu ko fi gis ngeen soog a méngale mais li ngeen di def du atte yëfi naafeq la yëfi fimiste la yëfi seytaane la yëfi jaxase la yëfi bëgg a taar réew mi ma foog ni nag reporter élection ci juróom-ñeenti weer moo gën dem ci élection ci le 25 février résultat yi génn Sénégal jaxasoo kenn xamul ku nekk président kenn xamul ku nekkul président kii li contesté ñiy jóg taal pour ci si ñëpp dugg suñu biir kër ak suñu biir réew jaxase suñu réew kenn du am jàmm reporté élection yi terew ñu am jàmm ci kaw ngeen sëcc seen làmmiñ toog ngeen dem wuy ji dialogue wuy ji concertation ñi lijjanti ko démb maa ngi dégg mu Ndiaye Cissé biñ ko invité seen TV mu wax ba ci biir. moom ak sëriñ buub démb laa naw sëriñ buub démb dama naw sëriñ buub nit ku dëggoo ngoog nit ku jaar daara la jiital na alxuraan ci kanamam d'accordul ci rapport bi d'accordul ci processus bi donte ñu ngi ko doon ruumandaat waaye gëmul woon ni dina am li ci am ba am suñu wootee dialogue moom demul parce que amul lu mu fay wax mais ñoom suñu demee ba tënk fa ñu xool ni que lii la ñu mu ànd ci dem ak ñoom su yàlla nee du bokkaat du bokk mu dem ta jaara ja wala dem ci ay toolam liggéey donte ñàkk na ci alalam bu dul jeex kii mooy républicain lii la ñuy xaar ci discours parce que kii dafa jaar daara ku jàng daara jàng alxuraan dina am tuuti loo xamante ne la nga koy sóoraale sa diggante ak sa borom ñii nag jànguñu daara jaaruñu daara jaaruñu fenn lan lañ jaar ci affaire um tubaab affaire opportunité affaire business affaire deal affaire nangam bu leen ñu sonal. bu ñu sonal Boubacar Kamara, gënu leen ko bëgg dem élection moom mi investir topp ci de campagne xam ni condition yi mënuñu ci dem élection suñ ci demee élection pëcc xoolee indi Aduna nak, li Olaf Njaay di wax fagaru mo gën faju Tubab ne ko prévenir vaut mieux que guérir

lan mo indi agitation bi lan mo indi précipitation bi y a anguille roche suñu démé demee ba ne report élection ki yor télévision mu jaral ko xoti carte d'identité muy worma Sénégal saga képp kuy sénégalais société civile dénoncé ko syndicaliste dénoncé ko mouvement citoyen dénoncé ko religieux dénoncé ko lan moy carte d'identité moo tënku ci suñu charte muy constitution Sénégal bu naan pour nga dem Sénégal ñi mën la identifier da am carte d'identité tey alxuraan ci lan la ñu tënku maanaam mooy l'islam maanaam muy alxuraan tey dafa mel ni nit ñëw rek xotti alxuraan est-ce que ormal na diine ji kon kii ormalul Sénégal lan moo ko agité pour ñu def loolu te kenn ci yéen yooyu ci yàbbi ci ci carte d'identité bi ñu xotti publiquement mu ñàkk ormal képp kuy yeewoo Sénégal yuuxu leen ci ngeen di da ngeen di yuuxu ci leneen dama ne. wax leen sénégalais yi lan moo ñuul ci soow li ak lan ngeen séq ak ñi sax élection bëgg am pour que mu leer seen intérêt la ñii taxaw nag créer aar suñu élection ku ci nekk ci ñoom yàlla may na la yoon wala may na la bunt boo xamante ni Sénégal suy sàkk mën nga jël say bagage say njaboot génn Sénégal dem sa yoon yàlla may na leen ko ci askanu Sénégal ci suñu xaalis ci combat yu ñu naan ñu ngi koy porté Union européenne di leen financé Oxfam di leen financé ci ay réunion ñu préparer seen avenir mais yéen ñu ñuy woo ci mobilisation kenn ci yéen parewu ci pour mën a génn tey dëkk bi su doon sàkk am na ñoo xamante ne amuñu sax passeport ñoom am nañu seen ay passeport am nañu seen ay visa ñii am ay passeport de service ñii ay passeport diplomatique am nañu seen compte bancaire loo xamante ne billet la ñuy bës mu daal di am ñu dem aéroport jël seen avion sénégalais bu leen dof dañ leen di nax seen rongooñ la ñu bëgg a siimee seen cere bu leen nangu benn buur di jaar si yéen pour siim cereem yow sax do am sax lo si cere ñaar fukki dërëmu cere bu amul ndox di ko lekk bu nax ci biir loolu ñi nga xamanteni ni mooy syndicat yi ñoom it dañuy woo élèves pour que ñu génn def débrayage débrayage boobu maanaam mooy pour ñu bañ a jàng ci biir loolu démb maa ngi dégg mu Ndiaye Cissé interpellé kii nga xamante ni mooy Fat Abdou Ndiaye sama grand la je le connais depuis 2013 mu respecté ma ma respecté ko ma fonk aussi ay position mais mu Ndiaye mon grand hier j'étais pas d'accord avec toi parce que toi, toogee nga ne foog ma leeral ko ndaxte Babacar Gueye moo ma interpellé par message nema na naa li lui luy suñu élection aar suñu élection société civile la ay syndicat enseignant la ay religieux la mouvement citoyen la ku ci nek dafa porte combat ñu and lo xeex loolu nga wax mu jaay day yakar dañ ni su ngeen boolewoo bay def aar suñu élection yéenay bokk ben principe de départ yéenay bokk ben objectif bokk ben arrivée société civile mënuñu ne ñun ni lañuy porter suñu combat enseignants né ne lañuy porter suñu combat religieux né nañ nañu nii la porter suñu combat mouvement citoyen ne ni lañuy porter suñu combat yeen ñëpp andu len ci ku ci nekk ak gis-gisam ba pare ngeen bëgg boole doole bobu xex ko comprendre tuma bobu coalition. coalition fay tënku ci charte règlement éthique déontologie mom conclusion point de départ bi fi la point d'arrivée bi fi la mais sur des points de départ bi moy nañu booloo ci biir comme marché bi ku nekk nag marché lu ko neex fin bi ñu ànd fa d'accordu ma ci parce que soo nee tey enseignants yi benn moyen la ñu am pour def grève débrayage te yéen société civile mun leen ko ko tere mu njaay je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point de vue parce que yow société civile tu es là pour le peuple sénégalais enseignants yi combat bi ñuy mëne nañ ko mëne ñoom ci seen personne les élèves yi ñuy débarayoo suñu ay doom lañu élèves yooyu am na ñoo xamante ne ànd nañ ci rapport bi am na ñoo xamante ne ànduñu ci rapport bi am na ay parents élèves yoo xam ànd nañ ci rapport ànduñu ci rapport donc ce qui est l' établissement buñ ko dugal ci politique ñoom ay enseignants lañu dañ leen sant nañ jàngal suñu ay doom suñu doom seen yoon newul ci politique ñooñu ñu bëgg a débarayaloo bëgg a dugal lii ci seen xel ñoom ñooy màgg suba am xam-xam ñoom ñoo war a jiite réew mi suñu instruire lii seen bopp ñooñu noonu la ñuy màggee donc Moundiaye si je ne suis pas d' accord avec toi sur ce point parce que waru len baye syndicat yi jël sen moyen su ngeen toogee ba boole yeen société civile da ngeen nan ñun kat combat bi ni lañ ko bëgg a porter enseignants yi ne ni religieux yi ne ni mouvement citoyen yi ne ni ngeen xol ndax méngoo na ngeen and ci tay yeen man ngeen wax benn po combat bo xamanteni enseignants yi gis nañu combat bobu baxul ci réew mi baaxul ci askan bi ñu ah defee len ni ngeen corriger enseignants yi mën nañ jël yeen société civile ngeen ne baxul baaxul len ni ñu corriger religieux yi ne nii la ñen né baaxawul def len ni ku nekk jëriñ sa morom ngeen tënk ko ci dara ngeen dem ci lool mais demeewu leen ci lool ci dispersion ngeen bëgg démé kon tay soné yeen yéen mënu leen tere enseignants yi ñu porter combat pour def lo libérage élèves yi je crois que dañu yeb askan bi bañ len di def enseignants di len fay suñu alal suñu ñàkk suñu ay tax newuñu leen woon ay reportu élection su jotee ngeen génnee suñuy doom suñuy doom dañ leen yóbbu école fayal leen inscription fayal leen lépp jëndal leen fourniture pour que ngeen jàngal leen sol leen xam-xam élèves yi seen yoon newul ci seen ay débrayage c'est immature c'est irresponsable ay enseignant yu jàng ba am diplôme ne tey ñun ñu ñu war a jàngal dañ leen di perturber seen année scolaire ñenn ñi mën nañ fa jaare sax genn école ba dootuñuy jàngi donc c'est irresponsable un enseignant c'est un éducateur un éducateur moi, koo xamante qu'on da nga éduquer mais li ngeen def c'est irresponsable immature lui yoon reportu élection Macky Sall daf ko tek ci décret Moundiaye Cissé wax nga ko démb si yoon bi ko loi may muy institution sénégalais yi votel ko kon soné pas, papa professeur Babacar Gueye da lay interpeller parce que sénégalais yi gawa diaboliser parce que li ngeen di def dañ leen di diaboliser je suis toujours d'accord avec toi Moundiaye Cité, mais hier j'étais pas d'accord avec toi sur le plateau Moundiaye parce que li nga wax ça ne justifie rien mosuñu fi gis calendrier républicain bu ñu changé dañ ko respecté mais mosuñu fi gis aussi mu njaay qui wax ka ay euh, député accusé ñaari juge de corruption mosuñu fi gis conseil constitutionnel valider candidature commencé une campagne ñu découvrir ni la candidature de dafa femme double nationalité nous ko fi gis donc comme lii mosu fi am lii tamit mosu fi am lii su amee moo tax lii am jaar leen ko mu simple kon est-ce que tey société civile warul taxawaayu tëddeen lay ji xeex taxaw ci kanamu askan ne ah li kat lumière amu ci tay lan ngeen bëgg ñu dem ci élection bo xamanteni amna kenn ko xamanteni tay double nationalité la am te su ngeen ne conseil conseil su xasse ba valider kenn mënu tul dugg recours kenn mënu tul reculer légui da ngeen di bàyyi sénégalais dem ci élection ak 20 candidats ak Rose Wardini bi nga xamanteni double nationalité la am. tay Rose Wardini su gagné euh, présidentielle en 2 février 2024, Rose Wardini dem France mais su togué avec Emmanuel Macron Emmanuel Macron moi président comment un président du Sénégal war na mën ak benen président au même titre que moom li ko élire mu wara waccé bopam wara nek euh élément koku koku doon président c'est-à-dire parfois damay poser aux question est-ce que y a ngi utiliser sen xel di réfléchir est-ce que précipitation jar na ñu dem ci ay élections yu mel noonu. tey la professeur la Ndiaye ñi ngi jiiñ dafa am double nationalité mais am na sénégalais yoo xam si ne ba tey jii leerul ci seen bopp te ñooñu ñoo war a dem voté ji mu Ndiaye tey Anta Babacar Ngom ñi ngi koy jiiñ dafa am double nationalité mais ba tey jii am na ñu mu leerul même su leeree ay nit parce que su dee Anta Babacar Ngom taxaw ne awma double nationalité eh, professeur Daouda Ndiaye ne awma double nationalité Cheikh Tidiane Dièye ne awma nationalité suisse mënatuñu ko gëm ndax ndaxte Rose ni dañ ko jox fiche ñu ne ko est-ce que mën nga war ci sa geño bay ben nationalité nga muy exclusive sénégalaise mu daldi di waat té te ko waté bañ démé fek nañu waat bi mu waatoon ay fen la légui lan moo ñu wóor ni que ci ñi di démentir ñoom ñomi nekkuñu du ñu fen est-ce que jotul ñu leeral loolu yéen ngeen bëgg dem ci élection bu lëndëm mais franchement parler vous n'aimez pas la transparence buggu leen transparence buggu leen justice injustice ngeen bëgg indi je te respecte je suis toujours d'accord avec toi mais je suis ou avec yow C'est une élection c'est c'est mal construit Il proche occasion pour Il y a eu tellement d'occasions pour défendre les sénégalais mais vous ne l'avez pas défendu combien de jours on a privé les sénégalais ñu combien de jours ay bus Tata combien de jours am Dakar dem

tey coalition aar élection yi ngeen gis luy élection benn 25 février ñu war ci voté ñan ñooy voté ay politiciens yu yor seen alal yor seen xaalis kan moo leen financé xamuñu ñaata lañ jox kii ñaar lañ jox kii pour bu porter leen seen combat s'il vous plaît arrêtons et soyons sérieux et soyons honnêtes avec nous li ñuy gis fii gisuñu benn honnêteté par rapport ak ñiy yor déclaration yi di wax tey russe ngeen ne dafa am démocratie muy Poutine dafa rejeté candidature ki nga xamante ne mooy seul opposant xanaa loolu mooy dictature et pourtant yéen yooyu leen ci yàbbi te yéen seen problème ay russe di ci wax ay américain di ci wax le sénateur américain Ben Cardin demal wax ci Poutine demal wax ci Poutine lu mu def Union européenne dem leen ngeen wax ci Poutine CEDEAO dem leen ngeen wax ci Poutine ah ñun amuñu sañ-sañ wax ci ñeneen mais ñoom am nañu sañ-sañ wax ci ñun quelle complexité quelle complexité dama bëgg ñu déglu ji benn vidéo bi nga xamante ni ay parents d'élèves yu nekk géejawaay ñoom ñoo ko wax mu njaay si tey yéen ngeen déglu yéen ñi yor syndicat yi ngeen déglu société civile ngeen déglu yéen religieux yi ngeen déglu nañ déglu ci vidéo bi del soir bu ñu jógee ñu ne dañuy dem grève parce que dañoo reporter élection yi loolu nag moom wax dëgg yàlla du li nga xamante ne lu euh, lu lu concerné jàngalekat yi yëpp parce que nag ñun dugaluñu école bi ci politique donc jàngalekat yi ñii nga xamante ne dañoo bëgg a utiliser école dañoo bëgg a utiliser suñu doom yi euh, ngir ñu def seen i politique dañ leen di wax ne nañu arrêté waruñu foowee di école di leen wax ne que bu ñu dugg si euh, domaine boobu parce que seen bëgg-bëgg mooy mooy yàq école bi ci biir Sénégal loolu noonu ñun dañ koy ñaawlu boo naree def politique danga koy defee feneen waaye doo ko def ci biir école bi nga xamante ñun ñëpp ñu ni ñu nekkee ci loolu ñu mën kaa dégg ñun ñëpp ñu ànd ñu xeex ko waaye bu ñu demee ñuy ñun nañu dem grève donc damay woo sama naataango jàngale jàngalekat yi bu ñu leen topp ndax ñii nekkuñu si dëgg et que dañuy foowee école bi. kon yaakaar naa ni ñoo déggandoo vidéo bi dégg ngeen ñii nga xamante ni ñooy parents d'élèves yi lan la ñuy wax tey su ngeen nee combat boobu la majorité des peuples ñoo ko porté donc c'est faux ñii wax nii xanaa bokkuñ ci peuple sénégalais est-ce que porté nañu seen combat pour que ngeen def débarrage bu leen yàpp nit ñii dañ leen fay soyez responsable et mature yéen ñëpp ay politiciens déguisés ngeen su démé ba gis ni que ki nga xamanteni c'est le comédien le plus ridicule des enseignants jang ba am diplôme dugg ci langue politique bi li défendre Ibra Degen ma xaali ma nga xamanteni élection syndicale bu mu dem moy jël avant daare say koku lan moko ñor est-ce que da ko dégg mu wax ci éducation bu souxé est-ce que da ko dégg mu wax ci jàng ji est-ce que da ko dégg mu wax ci ndaw yi ci politique politique lay wax mais pour ses intérêts personnels koku mo bëgg jël porter combat bi ànd ak ay naataangoom pour gérer ñu Sénégal soyons sérieux et logique et honnête liñ fi wax dara du fi kon yaakaar naa ni tey su ngeen nee société civile ñepp ci ànd c'est la majorité seen indignation dafa am ben kawoo luñu ñu bett mën ñu ñii di parents d'élèves yi ñu ak parce que ñu àndoon ak yéen dañuy d'accord ci sen grève bi mais d'accord ñu ci légui lan ngeen def ñu ci d'accord je crois que dictateur suñ koy wax yéen ñi bëgg a débrayeroo élèves yi yéen a bokk ci dictateur suñu wax dictateur mooy société civile bi bëgg imposer sénégalais yi li nga xamante ni la majorité des sénégalais ne l'ont pas dit sénégalais yi ñoo faloon Macky Sall au suffrage universel direct

ci lëndëm la ñu des juges corrompus lañ leen ko accusé lérogul 44 spoliés jóg bind lettre né dañu bafoué sen ak ak à yelleef comment ça va se passer ñu gis double nationalité Karim Wade bu mu leer ñep ka nationalité exclusive sénégalaise la ñu teggi ko mais ngal la way nañu dem ci mu élection 25 février ku ci démon doo ci génn ak jàmm ak yéen a ngi màttu bëgg a dem mais xamu luy xew dëkk bi su doon sàkk da ngeen di jël seen vol dem seen yoon baa doole bi moo fiy des mooy ñàkkante Sénégal nak kenn du ko ruiné su dee nak da ngeen am lu ngeen xamante ni nag da ngeen ko sékk ak ñenn ño xamante ni indi lëndëm bi dem leen ngeen gérer ju ko seen bop bu leen ko wékk ci bop askanu Sénégal ñun on veut des élections transparentes libres inclusives ba nga xamante ni du gis ben candidat bu accusé ñi wara arbitrer de corruption duñu gis ben candidat bo xamante ni annulé nañu sa euh, dossier nga génn nga ne dañ la xañ sa ak sa yelleef dafa am défaillance ci walu informaticien yi bugguñu gis ben candidat bo xamante ni dañuy valider pare ñu ne ki ndekete am na double nationalité ñi ñuy jiiñ dañu am double nationalité yëpp nañ ko leeral ba noppi ñu soog a dem ci élection